leve levée de fonds bi mu defoon nag le 3 décembre 2021 moo génnee 33 million yooyu noonu te 33 millions yooyu noonu maanaam entreprise am moom ci jëm boppam moom association bi mooy doon dundal entreprise boppam moom ci ay marché boppam te loolu lii daf ko firnde contrat bi daf ko firnde chèque bii daf ko firnde ndax ñaari entreprise ya nga xamante ni privé la ñu naan Bamba internationale business compagnie muy entreprise moom mu Mouhamadou Bamba Diop ak entreprise ba nga xamante ni benn colonel bu nekkoon en fonction ci gouvernement Macky Sall ne ko ñaari entreprise yooyu signé seen contrat privé moom Bamba Diop mu jël chegu association bi def ko ci turu Moïse Ban nga xamante moo nekkoon chargé commercialu entreprise u colonel boobu noonu jël 33 millions yii dugal ko ci marché soble entreprise am moom loolu lañ ni bu dul sàcc bu dul dóor bu dul détournement bu dul njublang lan la kooku sénégalais yi ñoo ko mën a répondre ak albinos si nga xamante ni xëy na moom ñi nga ànd ak moom te xamuñu réellement lan la def daf ñoo daf ne ko dafa taxaw nag indexé ñu publiquement ñun nëbbuñu ñun nëbbuñu ñun li ñuy wax dañ ko nëbbul maanaam moom ci jëm boppam Mamadou Bamba Diop moom nag moom la ñuy waxal carrément dañ koy laaj lu tax mu jël chèque association bi xaalisu association bi dugal ko ci entreprise boppam